loolu question la alors euh, Amadou <clears throat> président de la République bi mu jëlee décret euh, bi nga xam ni daf ko sukkandiku euh, ci pro proposition de loi bi jógee assemblée nationale ñu bari dañ jàpp ni waxtaan ko waroon jiitu. Mhm. loolu xanaa ñàkkul dégg nga ko keneen wax na ko. alors bi yoon mu ne lu jëm ci élection yi ak date bi damay waxtaan bala ma koy tàpp bala ma koy jàpp. Mhm. waxtaan boobu ndax Pastef ndax loolu gënul maanaam waxtaanee dat bi. ba déggoo am ci ba juboo am ci ñu doog ko wax parce que sinon bu ci consensus amul mën na indi leneen ndax jàppaloo ni loolu xalaat bu baax la ak it ndax mën nañ ci njoxt yéen ñi nga xam ni yéen ànd ak Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ngeen participer ci boobu dialogue ndax mu mënuñu xaar loolu ngir mën a am élection yoo xam ni itam dana gën a yaatu. waaw Pape xam nga honorable Moussa Diakhaté bu ne légaliste la. waroon na seet communiqué bi nga xam ni ab Mbow génn na parce que jàpp tudde ko communiqué assemblée nationale amul si maa ngi ñëw je confirme maa ngi ñëw assemblée nationale ab mbootaay la boo xam ni opposant ñëpp a ci bokk mhm. communiqué officiel le président qui l'engage madame Khoumes directrice communication moo ko def assemblée li muy waroo bu ñu wotee juróom féetee na la fukk ak ñaar voté ñaar l'assemblée a voté mhm. ñu ngi gisee communiqué communiqué boo xam ni da nga koo jël communiqué bi mu war a engagé tous les députés je pense que bu doon sax yoon dala koo may war nga am élégance daat ni communiqué bii ma bind de man ak waa Benno Bokk Yaakaar ak waa PDS képp la engagé benn bi ñaareel bi communiqué bi am lu am solo lu mu wax mu dangereux ndax dafa ñëw ni conseil constitutionnel dafa nangu àq ak yelleefu député yi mais mënoo lay nekk ay légaliste hmm. ba pare di wax lu garaaw loolu yéen conseil constitutionnel moo ñëw deux mille deux mille deux mille six daal ni li mu wax du ma sa dañ man du ma laal loi constitutionnelle loi de révision duma ko contrôler soof dinaa xool dara ku ma ko indil les conditions d'adoption d'approbation et le respect des limites matérielles et temporelles fi apportées par la con apportées par la constitution au pouvoir constituant dérivé constitution moo ni yéen député yi bëgg a modifier assemblée ngeen réviser constitution bi fexe leen ba bu ngeen koy réviser munoo leen ko def ci ay période moo ko wax c'est la constitution qui a apporté des limites au pouvoir de révision ki ne pas souverain à 1000 pour cent déedéet mu ne période suppléance bu amee munoo leen réviser constitution bi su président invoqué article 52 mënu leen ko kon constitution moo leen tere mu teg ci ni affaire mandat kenn mënu koo réviser kon boo nee constitution dafa euh, conseil constitutionnel moo leen indil conseil constitutionnel wax na ko depuis 2006 mm. te ba mu koy wax c'était bi ñuy yokk mandat député yi mu ne man de ku ma fi indil révision dinaa xool ndax loi bi c'est adopté par au trois cinquième des voix xanaa su ngeen nee ma man mënuma cee xool lu ngeen indi rek ni loi constitutionnelle la ma gëmm signé kon bu ko vingt personnes voté damay gëmm signé nee na déedéet damay xool ndax ñi ko adopté respecté ngeen nombre bi ndax def ngeen ko hors des matériel ak temporelles lan moo fi xew da ngeen ñëw ni da ngeen di reporter élection noppiwu leen fa xam nga bu ngeen bindoon ci suuf ni si délai bi su jeexee après le mandat du président c'est le président assemblée wala leneen mooy am. Euh, ñu ne président la ñu wax. da ngeen ni président bi en exercice. reste en fonction. Mhm. mu ne leen déet déet mhm. bu boobaa nag génn ngeen. yéen a ngi am conflit ak article vingt-sept ak article 103 kon toog naan conseil constitutionnel dafa dafa nangu seen pouvoir constituant pouvoir constituant nekkul boo loo xam ni dafa am lu illimité dafa ni la am ngeen ay limite kooku benn lu ndaw la deuxièmement xam nga lu indi problème mu report bi mooy ñun bi ñu defee recours député yeew yi député euh, yi yi def recours ak candidat yi recours sax député dafay rendre la loi le caractère suspensif loi bi entré wul en vigueur autorité compétente yi ngeen poussé ñu bloqué processus bi loolu indi problème si les autorités de la loi c'est defal ndànk promulgué guñ loi bi loi buñ promulgué guñ campagne dafa war a commencer continuer bàyyi leen nit ñi continuer yéen a jël décision moo tax man campagne bi su continuer woon parce que ñoom li ñu fi ñu bëgg a sukkandiku article vingt cinq bi ci recours bi lañ bind conseil ni ko xañ nañ ñu ay fanu campagne constaté ko ni ko dem nañ di jëli lii ñu bañ jox na laaj lañ leen lii ñu bañ kon yow jéemal xool nu ñuy trouver ay aménagement pour retrouver bi Amadou xaaral rek ma ñëw ci ah, loolu am na solo xam nga dialogue bi wax naa la lu am solo. Mhm. ak seen participation nee naa la conseil constitutionnel. bi muy wax président. Mhm. autorité compétente tuddul président dafa nit autorité exécutive en premier chef le président demal nga seeti say autorité muy laa daaf diñ leen laaj ngeen xool quelle est la meilleure façon pour ñu organiser élection ma jox la benn exemple suñ ne woon imprimer nañ billets yi ba pare. bulletin yi ñu bind ci vingt cinq février. Mhm. léegi ñu jàpp 3 mars. Mhm. ñu ne loolu garaawul nañ ci déggoo rek nañ ko continuer nañ ko dégg dañ ci déggoo rek maanaam loolu la ko conseil wax. demal seeti autorité yi. nga seet seen niveau de préparation lan la. Mhm. yan aménagement la ñuy dugal ci nouvelle date. xam nga bu bëggoon dialogue danaan ko demal dialogue yi léegi tey li may poser question mooy nañ la wax base juridique bi mag Sall wala jaar su ko su ko dialogue mbeeg ñi mu àndal joxoon pouvoir est-ce que mën ngeen a rëpp annuler élection yi ba indiwaat liste yu bees xam nga temps bi muy wax xam nga moom joxe na datam bi mu nar a toog nee na fin mai en tout cas avant juin moom fi mu bëgg a toog wax na ko. en tout cas ñu bañ a dugg ci nawet bi aussi. léegi dama lay wax xaw na pousse tuuti aussi. jëlal les problèmes waaw. yi posé wu ci con ci déroulement processus. Mm-hmm. parrainage bi mën nañ ko waxtaanee ci weer a genn waat pour mu régler wu définitivement. ak kon am ah parrainage bi du nee na spoliés yi moom moo woo moom moo woo ay spoliés léegi problème yi spoliés yi am jàpp nga ni mën nañoo régler tout le processus. indiwaat benn xam nga li mu bëgg a Macky Sall bëgg a naxee nit ñi mooy. su naan on va faire un processus inclusif tu as l'impression que c'est ouvert au grand vent. élection bi daal cent candidats la nar a am buñ defaatee élection ba indiwaat ko duñ dépasser quinze candidats parce que c'est le but de l'élection c'est pas ñëpp participer mais parrainage bu bees bi ñuy defar du du pour ñëpp participer ce sera pour empêcher l'accès à la candidature yaa ngi leen doo dégg ñu ne nañu yokku caution caution bi li ma la bëgg wax mooy bu nax nit ñi mm-hmm. li ko conseil bi wax mooy ak décision Rose Wardini bi mm-hmm. élection se poursuit léegi juridiquement laa leen di laaj d'accord yéen ñi bëgg yéen ñi ñeen ñi bëgg ñu i ubbiwaat l'élection président dañ may wax ban droit lay am compétence décret lay doon loi lay doon maanaam su ko dialogam bi mu bëgg a dialogue ne bàyyil li conseil wax ak élection yi sànnil ubbil bu bees ban base juridique ngeen ni am. mais ci conseil la koy jëlee toujours. non parce que loolu la wax moom. no leen dama koy delloo laaj ko. waaw loolu mais conseil bi li mu bind démb. waaw dafa ni. mais boobaa conseil li mu bindoon mu waxaat. ko mu waxaat ko ko mu jeex. léegi nag temps bi mu nar a perte kaay ma wax. xam nga luy problème bi. Uh-huh. conseil dafa ni ko man boo leen jëlee dat xam nga mu ngi naan bu leen fàtte ni y a des uh-huh. yu continuer dans le code électoral. délai yooyu dafa ni entre telle date telle date foog ñu respecté ko. pour rek bañ a dem élection mais danga ngaa fàtte bi ñuy voté ak carte d'identité yi mhm. carte d'identité biométrique disponible président bind conseil ni ko munu ma jox ñëpp carte d'identité te foog ñu voté nu may def conseil bi ne lii de circonstance exceptionnelle la droit de vote est un droit sacré te électeurs yi du seen faute mhm. yéen a am ay dysfonctionnement te y a un afflux massif d'inscription d'électeurs mm-hmm. mm-hmm. au vu des circonstances exceptionnelles déroger leen à la loi électorale mm-hmm. parce que le droit de vote est un droit constitutionnel tey lii la wax d'accord conseil dafa ni ko bu la neexee nga indi date yu bees ngeen wàññi campagne bi wàññi délai dinañ participer ci dialogue bi la ñu ànd ak du ci question ñu ànd ak Ousmane Sonko. xam nga tuutee Amadou. dafa ndànk rek dama lay wax ñi ànd ak ñi ànd ñi ànd. ak dañ ne duñu bokk ci dialogue bi. wax nañ ko suba ko non ñi ànd ak ma Aliou Mamadou Dia euh, Diaby li ñu wax mooy dinañ waxtaan pour xool nañ nu ñuy def. moo tax ma ni la dañoo bokk ci kuréel. bu ñuy wax FC vingt ok donc c'est kuréel bi suba dinañ daje. d'accord waaye principe yi ma la wax mooy. waaw dama bëgg man képp ku ne. Mhm. possibilité nga jël ay spoliés recalés ñëpp nga wooleen pour jàppi date. ok loolu mënuñ. mais est-ce que. waaw base juridique bi Macky Sall di indee élection yu bees. nañ ñu ko wax merci beaucoup. voilà alors. loolu sax laay laaj maître El Hadj Diouf ci fan ci yoon la président Macky Sall mën a jaar ba indiwaat processus électoral budul bi nga xam ni moo fi nekk te conseil constitutionnel bërki dem boo jaay ci bi muy tontu Rose Wardini mu tënk ne fukk ak juróom-ñeenti candidats yi ñoo war a dem ci élection yi war a wéy fan la fan ci fan la koy teg moom président. waaw euh, ci li ko yoon may. ndax yoon moo ko may. mu ne bis sàngam la élection présidentielle war a am Sénégal